saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey dooreewaat kook inna lillahi wa inna ilayhi raajixoon lamb amatina tiis amatina naqa rawatina lambum njaareem kañ fi doon wax seex bu naa ma faal ñu gënoon koo xam ci buur wuy jina boroomam mbooleem kuy mbër wala ngay amateur wala ngay bokk ci lamb te jaaroon njaareem xam nga seex bu naa ma faal mbooleem ku nekk ci réew te yëngu ci lamb nga nekkoon CNG xamoon nga seex bu naa ma faal mbooleem ku yëngu ci sport ci biir réew mi xamoon nga seex bu naa ma faal moo fi nekkoon directeur u stade Elimanel Fall bu Jurbel nekkoon fi directeur technique ci waaram ci lamb ak ci xam xàmmee moom la sunu lamb xëy fësal ak demam di ñaan yàlla yërëm ko keneen ka ñuy ñaan yàlla yërëm ko mooy Papa Yada bu tëngee bile champion démb la wuy ji boroomam dekkalaat naqar ci axlu lamb mbooleem ku nekk ci lamb jooy nga champion bi di Papa Yada mbooleem ku nekk mbër nekk tëngee jooy nga bile champion li ñu koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla àtte yërmandeem bu ñu jógee foofee dañuy jàll ci saison bi tëj ay buntoom ba ñu commencé def bilan ak seen leader ba Gris Bordeaux moom nekk ci ay saison blanche bu dee Forza moom wexaata tax mbëri di ko teggi ñaari at ngi amul combat déggul combat bu dee Gris 2 mi fi rëg-rëg defaloon bagage moom corona bee tëj mujjee naa signé combat digganteem ak Abdou waaye corona bee leen ne ràpp Serigne Ndiaye de moom mu ngay xalaw yoonam benn combat la am digganteem ak Libidor bu Kayar daal di confirmé journal ba daal di def bilan xam le lutteur lañu engagé ci bile écurie caatu Fass bul tuuf Serigne ak alliance bu Fass yile mbër lañu engagé woon 4 képp ci ami victoire muy caatu Fass bul tuuf Serigne Ndiaye 2 ak bébé Fass yeneen juróom yi des yépp dañoo am défaite muy Pape Ndoye Tafa Gueye 2 caatu montagne lam ba ci alliance bu Fass bu ñu waxtaanee ak directeur technique ba Tafa Gueye la mu xamle mooy on peut parler de bilan ñépp a xam ne lii du saison saison boo xam ne ci mois de février lañ ko arrêté loolu du saison ci condition yi daal mënuñoo dressé benn yoon bilan bu dee na ba dajale la mu war a dajale ngir daan Gris Bordeaux war Balla Gaye ci bile combat ñu ne courage confiance ak capacité technique loolu daal ay atome la yoo xam ne bu koy exploité dana daan Gris Bordeaux bile combat revanche Balla Gaye am nay atu yoo xam ne bu koy exploité di am dara ka war a exploité combat mag Eumeu Sène mooy Bombardier bile at la taxawee ñeent fukki ak ñeent mu desi ko benn kepp benn benn saison mu fas yéene cee bëreeg Eumeu Sène journal ba xam le ne Bombardier moom lii mooy sànnib avance am doon tukkee ci diggante Sénégal Entertainment Group ak waa kër guy gi dafa mel ni jeex na tàkk leen ci des mooy guy gi ñaadam ñaadam yi dem récupérer ji avance contrat ba xaatim nañu ko ba noppi ñu ngi débloqué xaalis bi nañu jàpp ne Gris Bordeaux tey la fas yéene jot avance ngir bëre bi li combat fa nuy jeexale mooy ca Elton ma wuti doole wuti kattan ca Maroc gannaaw ba ko rëg-rëg daanee en mois de mars Elton bu école de lutte moytu dana la fiir jàll jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fas seetu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah